asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi ziar mbokki jullit yépp di ziar mbokk taalibe yëpp di rafetlu bu baax teewaay bi ak taxawaay bi di sant mbooleem mbooloo mi ñi fi teew di leen xamal ne ñun ñi àndandoo woon teew xel ko muy nooru daare ni Masaalikul Jinaan ak nooru daare ni bu usine benn tali ci ndigalul jëwrin Baye Cheikh caw ak jëwrin sëriñ Saliou caw mi nga xamante ne moo jiite fële nooru daare ni bu benn tali ñu àndandoo ngir liggéeyal sëriñ bi fii ci barab bii nga xamante ne mooy baraba bu sell bii di xel ko di ci sàkku tamit ci liggéey bi yal nañ ci am am ngërëmal sëñ Touba li ñuy sàkku ndax mooy li nga xamante ne ci la ab jaam mën a jariñoo tey ak ëllëg kon loola rek moo waral ñu koy sàkku gannaaw loolu nag ñuy sant mbooloo mi nga xamante ne taxawu nañ liggéey bi ba mu toll fii mu toll xam naa buñ ci tuddee ku mel ni sëñ Abdou Seen mii ak sëriñ Fallou Ndiaye gàmm sëñ Fallou njaay ñoom ñaari sëñ Fallou yooyu ak soxna May ak ñëpp rek daanaka bu ñu limee dañuy jum ak suñu jëwriñ sëñ Cheikh Fall kokki mais ñu àndal ak sëñ fallu Gajaga mi féete ci waañ daanaka dañuy mën a yóbbaale mbooloo mépp waaye noonu la ñuy tuddee jëwriñ ji nga xamante ne moom lañ àndal liggéey bi te mu féete ca benn tali muy Serigne Saliou Thiaw nga xam ne daanaka li ñuy leerale dal bi yëpp euh, ci moom la bàyyi ko ak sëñ Omar Mboup mi nga xamante ne moo ko fi teewal ndax moom daa mel ni dafa am tënk-tënk ba tax mënul ñëw waaye di leen soññaat ci liggéey bi ngeen xam ne daal mbir fu mu nekk ay nit a ko fa def waaye bu fa saxee ay nit moo ko taxaw kon nag ndeem dal bi dem na ba tollu fii doomu aadama ju nekk na xam ne yaa ko war a defar rek nga jàpp ci mu jàkk mbirum sëñ Touba nag nit ki ab tàmbali rek la ci am ak yéene waaye la koy defar sëñ Touba rek moo ko mën a defar ndax ku ci nekk xam na ni fii liñ fi daj ak liñ fi fere amuñu ko waaye dañuy am suñu yéene rek di def sëñ Touba di ñu ca fekk ndax xam nga bu fekkoon lu ñuy génne ci suñuy poste di ko joxe la kon loola mooy lu ñu am te nag fu ne la ñuy dugg doog ko am kon amun ko sëñ Touba rek ci lañ ko yaakaar di ko ko diis di ko ko sàkko te boob ba léegi mu ñu ci defal tawfeex saa buñ ko ko diisee yaakaar ji du tase ci moom kon ñu koy gën di yaakaar di ko gën di wóolu waaye di gën a soññ mbooloo ci liggéey bi te it ñu xam ne la ma leen doon wax bu njëkk ca Ndakaaru ba ñu waaja a départ doomu aadama ju ci nekk nay xool ci moroomam sëñ Touba te ñu bàyyi xëqante ak yenn yi nga xamante ne day indi rëq-rëq ci ab liggéey te xam ne jëmmi sëñ Touba jii rek moo nu mën a jariñ tey moo nu mën a jariñ ëllëg leneen loolu mën a jàpp lu war lay doon te doomu aadama ji bu xamee yàlla xam gu wér war naa jaay ak dundam ci dundal ko ci yàlla jeexal ko ci ba nga xamante ne dara luy woru du ca aw ndax sëñ Tuubaa de waxoon nañu ca tasawdu si xaar yaa ayyuha sibyaanu laa tastaqilu anil oda biir si wa tilaawa wajtani boo majalis si xaawa wala si moo man laa yasaalu abida li rabbi ilaa uddaaw xaaida kon nag loola rek mooy dëgg jataay way texee du yooyu nag yàlla dogal na musal na ci jataay bi ndax bokku ci kon nak ànd ak ko ke muy wax tamit ki nga xamantene day jaamu yàlla ci ak njub rek la koy tek yaakaar na seigne saliw doy na ci sëkk firnde ndax limu def kenn musut melni mom le Cheikh Ahmadou Bamba waxon nek ca bam fi bayiko seigne saliw ci lol la nek muy lil mustafa nawaytu maa yu jaddidu sunnatawul xaraawa inni Ahmadou sunna si nak dara jitu ci liggey bi ndax liggey ci la ñuy fayé ko bo xolé alquran ba mu daj faman ya'mal waman ya'mal waman khala amut faman khala amut kon yàlla waxut ku wax dara ku def dara rek lay wax kon nag nañuy jëf te jëf ji mënul romb mënuñoo jëf dara loo xamante ne moo ëpp liggéeyal sëñ Touba ndax Touba li abdin muridin saadixin lahumu bi xidmatin aw bi hubbin aw hadiyaat sëñ Bay Jaxate nag da daan wax naan doxoote bëgg raw ku ne jëfoote bëgg am lu ne sonnoote bëgg gën ku ne du mën a am na ko xam kon ndekete ci loolu rek lan mën a jëriñoo té nak señ musa kané na nattub jullit day yok ay maqama mbaa muy soppi bi bisub qiyam la yalla jox xarit ba ci maqama té mënu ko jëf la koy xayma té bala laa ba jox la mbir ya nga muñ natom ya aw ci tanki mbeuri kon lu tënk-tënk yi bari bumlen leen découragé bu leen sonal ngir diiné ay bakkan yu bare bare bari ñoo ci dé diiné soga taxaw yoonu murit wi ciono bu nek señ Touba daj nako luñ tégut señ Touba lu nu la nu nuy def nit ngir mu dé def nan ko ni yalla bañ da nek kenn mënta lor kenn ku loru yàlla la neex mu loro waaye sëñ Touba lépp luy lor nit def nan ko ko sëñ Touba yàllaa ko musal ca loola. kon ñun itam lu fakk-fakk yi bari na dëgmal Serigne Touba rek te xam ne lu fakk-fakk yi bari yàlla mi fegoon sëñ Touba mi ngi fi ba léegi te mën na noo fekk. li ma leen di ñaan nag mooy mbokkum taalibe mu nekk nay jàppe moroomam jëmmi sëñ Touba ji di ko xoolee loolu bu koy def rek lépp lu ko mën a teg da koy mën a tegoo ngir jëmmi sëñ Touba kon li ma leen di soññaat mooy liggéey bi. ndax liggéey bi ci la ñu mën a amee defarug àdduna ak defarug àllaaxira Cheikh Mouhamadul Mountakha yaakaar naa bu nit doon jeexal wala muy matal ci sëñ Touba dañ naan matal na ndax lépp lu ñuy jëf moo ñu ko dàq te bi mu toogee ñu jàpp ne moom pare na ci liggéey bi day liggéey looti ci la ne moom ku dem day dem ku demut day dem kon moom ba léegi bàyyeegul liggéey bi te ñaanu ko yàlla bàyyi ba keroog muy dugg bàmmeel yàlla na yeex kon ñun ñii nag àggaguñu fenn bunteel a gàllankoor suñu bopp ci ak aku kowe nan wattu lol ñu téla jëf jëf ji nga xamantene moy liggéel liggéeyal Touba té jéxal ci sunu dund ngir sentuba Touba bu jéxalé sunu ndaw ci mom rek sunu mag dinañu ko alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yal ñëpp am jam ma ngi ñaan Cheikh mohammed al Muntaka yal na fi yag ak Serigne Cheikh Mbacke mi nga xamantene mo fi téewal Serigne saliw ak mboolem xulafaaw yi nekk ci yoonu mouride ak mbollem ko xamantene diiné diine la ñor alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh